da ci am ñu bari daf ñu <laughs> wax ne koor gi jeex na nag nañ delluwaat cosaan am na ñoo xam ne fekk na route boobu bàyyiwuñ ko woon mais am nañ route boo xam dañ fay ñëwoon waaye comme koor gi jeex na nañ delluwaat mbokk yi dundu doomu aadama dafa aju ci bu mu ganesee àdduna ba bi mu faatoo léegi nag moo yor choix am di xool ndax bu jàppee ne jaamu yàlla périodiquement la dama koy def benn fatra pare ci jeex na la ca des maa moom sama bopp bu boobaa mu ngi nax boppam lislaam du diine joo xam ne dañuy gëm liñ ci neex ñu appliqué ko lu ñu neexul ñu sànni ko ca feleen lislaam diine joo xam ne da ngay jëlandoo lépp jëfandikoo ko lépp sa kemtulaay kàttan ci ndigale ya bàyyi tere ya loolu mooy diine waaye lenn lu ci ne tam maanug yàlla leen lu ci ne maanug yàlla lenn lu ci ne maanug yàlla na nga ko jëfee foofa noonu la koy fayee kon yal nañu yàlla dimbale ba weeru koor wi nga xam ne moom lañ dugg yàlla may ñu kàttan ak wér-gu-yaram goo xam ne ni yàlla santaane ci loolu am na lum ñu war a jàngal ci àdduna ni ko sëriñ Touba radiallahu anhu melale woon ci Hamad Souleymane àdduna doon koo xam ne bu ñuy wax ñaawaay ba jéggi na dayoo waaye defar nañ koo defar ba mu taaru mu fas yéene ñoo peer njaay yu fas yéene ñoo nax ñu topp suñu bakkan te dundu doomu aadama fi mu mënee ak fi mu tëlee lu gàtt la démb rek bu yàggul rek bu ñu bëggee daw dañuy daw lu ñu neex waaye léegi bu ñu bëggee daw loolu mënatuñ koo daw kooku nit ki war naa jàngat ne lii lan la yàlla lim lay jox mi ngi rocc mi ngi rocc par benn mi ngi rocc kàttan gi mi ngi rocc gisin gi mi ngi rocc di rocc di te yow sa xel xalaatoo ne kii lim la joxoon bés dey ñëw mu jël ko te bu ko jëlee moment bi nga fi nekk li nga jëf rek mooy sa mbir kilifa yi yal na leen yàlla dëgëral kilifa yi yal na leen yàlla dëgëral ñun ñi nga xam ne ay njaboot lañ tam yal nañu doon ñu neex a yilif ñuy sant bu baax a baax euh, mbokk yi nga xam ne dañ fee ñëw tey ji am lu ñuy jël ci barab bi te yàlla dogal ñuy juddoo ci barab bi wala ñu tuddee ko barab bi muy xew gi TV yàlla na leen yàlla dooleel euh, mën nañ koo ñaan làmbali ci kàddu imaam xëy na jokkoo nañu ak imaam avant ñuy tàmbali cee wax benn xaraf ndax imaam mooy responsable fii ba mu jox ñu ndigal ci loolu bu ñu joxantoon ndigal tamit dañ koy dindilu rek waaye kon imaam jox nañu ci ndigal ñi ngi ñaan nag yàlla dëgëral leen ndax lu mel nii am na solo ndax foo dem rek ña fa féete ña ngay wut ay jumtukaay yoo xam ne seen communication dinañ ko jéem a jàllale loolu nag ci ñi jëm ci yàlla ñi jëm ci caaxaan na ci yama ah, kenn ku ci ne di nga wut sa communication boo xam ne li muy jariñ mooy ngir li nga bëgg a jàllale nga jàllale ko te ñoom li ñuy jëfandikoo day dañ ko tuddee mbir moo xam ne dafa yor ñaari wet yuy dagg wet gi nag ñoom ñu jëmee yàlla na leen ci yàlla dëgëral ndax mooy wet gi nga xam ne moo gën yàlla na leen yàlla dëgëral ba ni ngeen ko bëggee ngeen amee ko noonu te ni ngeen ko bëggee jàpp nañ ne mooy lu tasaare lislaam ab jullit nag bu jógee ci loo xam ne luy tasaare lislaam ña mënuñu lu di ko ñaanal yàlla dimbale ko ci loola ndax loola ab soññ la ci jullit ñëpp ju soññ la ci jullit ñëpp ñu ñaanal bu baax a baax kilifa yi yal na leen yàlla dëgëral bu baax a baax di waññeekuwaat nag di jégluwaat bu baax a baax fa ñu tàmbalee woon te ngànt ku ñu amoon moo taxoon ñëwatuñu woon ci barab bi loo xam ne moo ci seen waar ngeen ñaanal ñu yàlla dimbale ñu waar woo bañ a booy loolu rek lañu soxla kuñ ko ñaanal muy dimbale ñu yàlla may ñu kàttan ak wérgu yaram goo xam ne lii ñu sëriñ bi sant ci loolu te diine santuñu ko sëriñ bi dimbale ñu ci yàlla def ci suñu xel ñu xam ne jaamu yàlla la ci ñun yàlla bu ñu ci gis suñu bopp yàlla nañ ko def jaamu yàlla te ñu bañ cee gis suñu bopp lu ci jub santaane borom bi subhaanahu wa taala la lu ci dëng ci man la ab jàmmatul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Yeah.